mbokki jullit yi noo leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen jéggul tooñ bu fes ak bu fesul gun yëg ak gun yëgul ci bés bu tedd bii xaasatan ak ci fukki fan yu tedd yii amatan nga xam ne dees ci ful yoolu jëf ju baax laa qadarallah ñu ciy fulit bàkkaaru safaan ak mbugal ga ca baaxoo am bu àndul ak njëggal yàlla na jullit yépp am am njëggal amul nag jenn jëf ju baax ju ab jaam mën a jëf ak lum rëy rëy te yàlla farataalu ko ci moom man caa amee lu toll ne li ku tabaski mën a amee ci tabaskiyam bu ko yàlla nangoo ci tuyaaba ak doonte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe daraja ci luñ mën a tabaskiyee te fekk nag loola la am te mu yéene itam la gën a mat ak nonte ne itam ki tabaski wul daa jëf-jëf ja gën a rëy ci lu jaam mën a coobarewu jëf ko ki jëf-jëf ju rëy ji bu tabaskee ne moom nag te moom it yéenam sell yàlla rekk tax ngëneelul yàlla daal di ñëw nag mu war a nangu dogalu yàlla dalika fadlullahi yutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim yàlla dara waru ko ci kenn wala lenn kon sañ naa gën a leen te def la ko soob te moom rek moo jagoo lu mu bëgg a def man ko te du diisoo ak kenn faalu li ma yurid yafalu ma yashaa wa huwa ala kulli shay'in qadir yeneen dañu tànn ci nit ñi sax yemalewu leen yem ca tànnaa nit yemalewu leen tilka rusulu faddalna baadahum ala baad wali yi noonu malaaka yi noonu laneen it noonu rek lay demee kon ku mën a tabaski ak tabaskim ci bis bii na xam ne dara mënu ko wecc maa amila aadamiyun min amalin yowma annahri ahaba ila allahi min ihraqi dam innaha la taati yowma alqiyamati bi quruniha wa ashcaariha wa awlaafiha wa inna dama la yaqamu min allahi bi makanin qabla an yaqaa min al ardi bu tiibu biha nafsa lim koy mën a ci xar mooy mu am at bu jàppandul mu am fukki weer juróom-ñetti weer ba ci juróom-benn weer lu néew néew bu dee ci bay mooy wu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteel bu duggee ñeenteel gënati gëléem gu dugg juróomeel bu duggee juróom-benneel gënati lu mu ci mën di doon it bu mu am jenn ay jufes di bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara ubnu azib bu mu amit ayib ju yem ak ci ñoom ayib ju yees jànn ci ñoom wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wopp yooy bu mu cee ci ayib nag ju fes ak ju fesul muxtaar maangoo bu ci boolee am béjjën jaxase weex ak te ñuul ñuul ya bañ a génn la war bët ya la war ga biir ba tànk ya daldi nekk tànneefu tànneef ni ki mu dikk ci xadiisu sayida Aïcha ba te mu indiloo ko ci paaka bu mag daasloo ko ko ci doj ca mujj mu ñaan yàlla nangul ko moo waa këram te ñooy ahlu kisa am na ñu ko yaatal def leen juróom benn am ñu ko yaatal def leen fukk ñaar am ñu ne ku bokk ci ban bani hasim rek te gëm ko ci la am sax ñu weesu loolu waaye da lu mu gën a néew rek lay la wax ji di gën a maanaam yenn maanaam ndax day laaj ku ci bokk ku ne sell gu mat sëkk mu teg ca ñaan yàlla mu nangul xeetam wépp an Urwata ibni Zubayr an Aysata anna rasulallahi sallallahu alayhi أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم الوديا ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به mu war nag képp ku ko man tey asgar di ab jullit moo xam la wala ndaw góor la wala jigéen ku nekk fi dëkk la wala ku nekk ci tukki te du aj fii ba sawaar di jot fi def di gëne ku jàppandoo ci moom fii ba jant bi sot gannaaw ëllëg fu mu ko def fu mu ko fi defee te du génn te du guddi baaxul def ki lu mu gën a jege yor yoru tey bi ci lay gëne ba mu des ëllëg ca gannaaw tisbaar bu boobaa yor yoru gannaaw ëllëg la gën a taamu ci waxtu woowu ak doonte ne moo gën a sori lii lañ tënkoon ci bis bi dundal ci sunna ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ko yenn waroon xam-xam waxe te mooy fàttali xamle lu aju ci tabaski bi bu dee koor mu daa fàttali xamle lu ci mbirum koor ndax du ñàkk ñu fàtte du ñàkkit ñu jutul woon xam sax bay fàtte te mooy roykaay bi ci lépp lu mu daa def te jegoowu ko moom kepp yàlla na yàlla nangul gi ak yee ko jëkk ak jaamu yàlla yépp rek te yàggal fi suñ kilifa gi yàggal ñu it ci gannaawam te may nu wér ñun ñëpp may mu njub léegi ñu jox kilifa gi kàddu ndax